yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi sayyidina wa mawlaana Muhammad wa alaa aalihi wa asxaabihi wa xadiimihi wa sallama tasliiman subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aliimul hakiim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 di leen balu àq di ñaan yàlla jotal nu ci yool bi nga xamee ni moom la dig ku woor weer wu tedd wii defe ko na mu ko bëggee di ñaan yàlla eggaleel ñu fukki fan yu mujj yi nga xame ni dig yu rey la ci sunoom suñu borom diggee ñu am mbégte tey nag ñëwaat fii ci place makaan mu tedd mii ñu am mbégte mu rëy nag teewaat tey ci makaan mu tedd mii nga xamee ne moo gën a tedd ci jun luy tedd ndax fii la sunu yaakaar tey ak ëllëg nekk mu Cheikhuna Cheikh Ahmadul Xadim xam ngeen ni daayiratu muxaddamatul xidma ni mu ko baaxee ba weer wi teroo ba léegi bis bu set ci waxtu wii am na lu mu waajal mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi muy ay bindi xam-xam yu am solo yoo xam ni dañ ciy jàngat lu jëm ci sunu diine ak sunu dund loolu nag bu ñu ko defee dañuy tànn ay kilifa yu mag a mag yu ñu rafetlu seen xam-xam rafetlu seenu taalu bi ak seenu doxin ñu jox leen ko muy ñu ko matoo itam ñu taxawaloo la tey jii nag ñu am mbégte feggoog suñ mbokk suñu xarit muy docteur xaadim Sylla mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko di jàmbaar boo ne wii du tàyyi du sonn saa boo ko gisee rek xamal ne ci lu lu jëmale yoon wi kanam la nekk ak lu defar ak lu baax yàgg na fee traité ay thèmes yoo xam ni yu yu jamono la ak yu jëm ci diine ndax lislaam diine islaam lépp la lépp la boole tey nag mu ñëw indil leen thème boo xam ne bii thème bu xam ne raar na sax ñu koy traité fii waaye lu ñu war a waxtaane la ndax dañoo wax ne jigéen mooy genn wàllu société bi ab société nag lépp lu nekk genn wàllam wares na ko ittewoo wares naa xam nu muy doxee warees na koo contrôler ba xam ne muy doxee noonu la am déet rawatin nag société boo xam ne bi société société jullit la di di ay morit ñu indi woon nag tey thème boobu muy amalul mara wa dawabituhu ash-shar'iyya maanaam liggéeyug jigéen ak ni ko lislaam tënke ci loolu la suñu xaadim bëgg ñëw tey waxtaan fi jigéen am na ñoo xam ne ñi dañoo yaakaar ne jigéen wërta liggéey dafa war a toog ci kër gi waaye loolu njuumte la lislaam moom diina ju mat la ni góor war a liggéeye la jigéen war a liggéeyee waaye nag kenn ku nekk dafa am lu da tegal ne fi ngay war a jaar nii ngay war a doxe jigéen mu tam buñ topp buñ xoolee histoire islam dañuy gis jigéen ñu jàmbaare ñoo xam ne ñii ñoo ma ni góor te yàq lu leen dara ci leen seen diini digal ak nañ war a doxe ci suñu yoonu murid bii sëñ Xaadim ñoom bind nañ ci ay téere jigéen ñi murid yu jàmbaare yoo xam ne yii kenn mënu leen a jam seen diine waaye benn homme d'affaires wala femme d'affaires mënu leen ñooñu nag ay exemple lañ yoo xam ne yi war nañ leen a wane wan àdduna bi itam ne leen lislaam diina ju mat la diina jox jigéen euh, gëddaam la loolu daal mooy thème bi nga xam ne moom la docteur Khadim Sylla bëggumaa guddal ndax waxtu wi euh, yaakaar naa moom lépp lu ci war bu ñu fi jógee danañu xam ne moom bi jox nañ ko ku ko ku ko ku ko ku ko yelloo euh, suñ xaadim kon tafaddal mashkuran alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina bi hadihim ila yawmi ddin ixwata al wal iraada asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen bokki jullit yi teew ci barab bi yépp bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkee ci weer wu tedd wii ñu nekk te nekk ci fan yu mujj yi di jël nuyoo ak ziyaara bi di ko teg ci loxol jëwriñu liggéey bi mu di sëriñ Afiya Muhammadul Muxtaar mu wàcce ko ci mboolem daairatu muxaddamatul xidma yépp ak mboolem bokki jullit ak bokki taalibi yépp di am mbégte nag ci dellusiwaat fii ànd ak yéen liggéey bi nga xam ni comme ni ko sëriñ naa waxe ci ngeen dëkk yéen waa daayiratul muqaddamatul xidma ci at mi yépp dafa tollook nag weer wu nekk rek am na lu ngeen ko cërale ci biir liggéey bi weer wu tedd bii nag di weeru koor ngeen cërale ko ci jataayi diine yi comme ni leen ko sëriñ Cheikhouna Sall waxe tey ñu tànn thème boo xam ne bu am solo la bu bu jara waxtaane ndax toll nañ ci jamono yoo xam ne diine ji soxla na ñu waxtaane ko waaye pénc mi itam soxla na ñu waxtaane ko te muy liggéeyu jigéen ci gisiinu lislaam ak ni ko islaam tërale ak ni mu ko tënke bu ñu waxee lool nag comme ni ko sëñ Seexuna junje mooy liggéey bi bokkut ak bi mu aadawoo def ci biir kër way juram lu jiitu muy dugg néegu sëy ak liggéey bi mu aadawoo def ci biir néegu sëy gannaaw bu ca duggee ba noppi waaye liggéey bi nga xam ne nag ci bitib kër gi la koy def loolu bu ñuy wax liggéeyub jigéen loolu moom lañ ca jublu jigéen nag comme ni ko sëriñ naa junje dafa nekk koo xam ne genn wàllu société bi la société bi buñ ko xaajee muy ñaari xaaj benn parti bi mooy góor ñi benn bi mooy jigéen mooy jigéen ñi ndax jigéen aw daggit la ci góor alquranul karim wax na ko auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yaa ayyuha naasu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waaxida wa xalaqa min a zawjaha wa bassa min uma rijalan kathiran wa nisaa wa taqulla alladi tasaaluuna bihi wal arxaama inna allaha kaana aleykum raqiba sunu borom subhaanahu moo wax ne yéen nit ñi na ngeen ragal yàlla seen borom mi leen bind te tàmbalee seenu mbind ci jenn jëmm muy góor bi mu ko bindee ba noppi nag mu tibb ci góor nag bind ca jigéen loolu moo tax e, nee na ñoom nag ñoom ñaar ñooñu muy aadama ak xawaa ñoo meññ mboolem moo leen ñoo leen meññ mboolem yéen ñi nga xam ne yéenay xeetu nit yéen war a bàyyi xel ci loolu lépp nag yonent bi sallallahu alayhi wa ñëwaat ne annisaa'u shaqaa'iqu rijaal jigéen ñi aw daggit lañ ci góor ñi kon société bu nekk ñaar ñooñu ñoo ko seq loolu nag moo waral et mission bi nga xam ne itam moom lañ leen dénk bi muxtadal xilaafa te muy xilaafatullahi fil ard ñoo ko bokk ñoom ñaar la yàlla wàcc ci kaw suufu ñu nekk ci kuutaayam ci lépp lu nekk ci suuf ak lépp ak ñépp ñu nekk ci suuf ba képp ku nekk ci kaw suuf rek di mbindéef te doo doomu aadama la nga mënalul sa bopp ka nga bokkal aw xeet mënalula ko doomu aadama la yàlla digal mu wuutu la ca garab yeeg ma yeeg mbindaa ko ni yàlla yépp tey kenn ku ci nekk la nga mënalul sa bopp sa ki nga bokkalu xeet mënalu ko doomu aadama moo cay moo moo cay wuutu sunu borom subhanahu kon mooy kuutaayal e, sunu borom ci kaw suuf yàlla nag sant am lu mu ko sant nag am lu mu ko sant tobbil ko ñaari sas sas wen wi mooy li jëm ci li yéwénal këru ëllëgam sas wi ci des mooy li yéwénal aw nekkinam fii ci kaw suuf muy ñaari liggéey yu ñu ko sant benn bi mooy jaamu yàlla gi nga xam ne ca la fàggoo la nga xam ne mooy ajjana yi ëllëg ak texeg ëllëg ak teraanga yi ëllëg ak liggéey bi nga xam ne mooy yéwénal sunu nekkeen fii ci la ñuy sàkkoo sunu teraanga li nga xam ne mënuñu ko ñàkk muy sunuy dëkkuwaay sunu dund sunum kodd suñu lu aju suñu gi yaram ak lépp loo xam ne daal mooy yéwénal suñu nekkin ci kaw suuf ñaar yooyu tey moom la ñaari sas la yoo xam ne suñu borom daf koo tobbil góor gi ak jigéen gi kenn ku ci nekk am ci taxawaay bu mat sëkk boo ci war a am li nga xam ne it mooy suuf fi mu wàcce it mooy li fi war a am ci ay infrastructure yépp yoo xam ne doomu aadama soxla na ko ak dundin gi muy liñ fi war a tabax lépp doomu aadama la yàlla sant mu def ko te góor gi ak jigéen ji la wa ansaakum min la ardi wastamarakum wastamarakum fiha ñoom ñaar la sant bi mu leen wàccee ci kaw suuf ñu mettre suuf en valeur euh, exploiter li fi nekk lépp li fi nekk war a nekk am ci ay infrastructures yépp it ñu def ko fi sunu borom ko waxit ne ñoom ñaar ñooñu nag kenn ku ci nekk sasoo wala tobbil nu ca sa taxawaay ak sa yitte toll na la résultat ba nga cee am toll muy laa la cee fayee amut benn discrimination wala benn distinction boo xam ne dañ koy def entre góor gi ak jigéen ji ci kaw ni kii kat jigéen la kii kat góor la ci lépp loo xam ne dañ koo jëf lañ leen ca war a fayee man amila saalihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nu'yannahu hayaatan tayyiba kooku mooy sas wi aju ci wàllu te li yéwénal nekki ni fii ci kaw suuf moom la jëkk a wax man amila saalihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nu'yannahu hayaatan tayyiba ñoom ñaar ñooñu képp koo xam ne laxasaayu nga def taxawaay ya nga xam ne moom lañ sàkku ci yow ci luy yéwénal saw nekkin fii ci kaw suuf ci wàllu liggéey lañ la ca war a faye lépp ci ak pay goo xam ne dana tax nga am dundin wu neex wu teey am dëkkuwaay bu baax bu méngoo ak yow di dund dund bu baax bu méngoo ak yow di kodd kodd mu baax di sol yére yu baax yu méngoo ak yow naka noona la nga mënta ñàkk lépp ci ay tiraanga yu méngoo ak yow nga mën koo am sunu borom nee na képp koo xam ne futti ku gën liggéey te jox liggéey ba àq te sellal ko nee na warul naa la lépp lu aju ci lii nga dund dund gu teey ba doo sukkandiku ci kenn doo dépendre ci kenn doo jaay sa ngor jënde ko am am doo jaay sa diine jënde ko am am ndax la nga war a am lépp am nga ko waaye yaa ngi ko jaare ci liggéey mu ne waaye naka noona beneen tool bi muy jaamu yàlla itam nee na muy góor gi di jigéen gi képp koo xam ne la la ca war lépp def nga ko bu fay jotee danaa la fay lu tolloo ak la nga ci jëf muy wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'maluun muy sax su ñaareel bi mu ne nag loolu nag tax na ba mbir mi kon ci yitte ji ak taxawaay bi rekk la nekk kon amul benn discrimination boo xam ne lislaam def na ko ci diggante wàllu liggéey boobu ci diggante góor ak jigéen lu dul li leen di wutale daal mooy seen taxawaay ak seen yitte ak seenu farlute loolu moo tax nag a ah, comme ni ko sëñ dunde dundee jamono ju nekk nag dana danañu gis ci société yi bu nekk bi yàlla bindee aadama ak awa indi leen ci kaw suuf ba nekk génération bu ne ak société bu nekk danañ ca gis jigéen ñu gétti góor ci wàllu diine ji ak la dina ci soxla ci taxawaay ak ci wàllu nekkiin wi ci pénc mi ak liñ pénc mi soxla woo jamono ju nekk rek gis nañ jigéen joo xam ne tey am na taxawaay boo xam ne góor amu ko ci ñaari wàll yooyu ba yàlla cërale ko cër boo xam ne cërale ko góor ñëpp li ko waral nag mooy lan a ah, sunu borom wax nag fastajaaba lahum rabbuhum anni la udiu amala aamilin min sakarin aw unsa baadu min baadin ba ca desit mooy wal noonu wal mu'minaati ba'duhum awliyaa'u ba'd ya'muruuna bil ma'ruuf wa yanhawna 'anil munkar muy li leen war ci pénc mi ci taxawaay bu ma sëkk ci taxawu pénc mi ak waa pénc mi kenn ku ci nekk na ca sa jëf toll na la ca sag pay toll na la ca cër bañ la cay jox tollu sa wàccuwaay ca biir pénc ma ak société ba it noonu la toll moo tax nag góor gi ah mën naa nekk kilifa mboolem góor ak jigéen ñoom nekkal waaye léeg-léeg nag ci wàllu kilifteef ci wàllu àdduna ak nekkin wi ci àdduna góor gi nekk ca kanam ay góor ak ay jigéen ngir yitte ak taxawaayam bu mu am mësta deñ bi yàlla wàccee aadama ba léegi ak awal ci suuf société bu mel noonu di am loolu ba ci suñ jonni tey jii loolu nag taxawaay boobu nag moo waral kon Eh, lislaam ni muy waajale góor ci wàllu xam-xam ak ci wàllu formation ci wàllu yëpp noona la digale ñu waajale ko jigéen bi ci wàllu xam-xam ak ci wàllu formation moo tax talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin sàkku xam-xam ak waajal jigéen ci wàllu googu farata la ñu gis ci njalbeenu islaam taxawaay bi nga xam ne jigéen ñi am na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daaraam gi nekkan madinatul munawwara dafa aman benn dars benn jataay boo xam ne bu mel ni bii ci jataayu xam-xam ak jàngale ci ban taxawaay ak ban xam-xam xam-xam yi nga xam ne daa aju ci diine ji ak xam-xam yi aju ci ni ñuy ni ñuy gérer penc mi daara ji ko yonent bi doon jàngale dafa am kuur bu mu jaglee leen góor ñi am kuur bu mu jaglee leen jigéen ñi njëlbéen nga daf leen doon boole jigéen ñett am féete ci benn côté góor ñi féete ci benn côté ba yàgg mu beral góor ñi seen kuuru bopp booral jigéen ñi seen kuuru bopp ba loolu moo tax tey bu ñu ko seetee tey ci kaggu yonent bi sallallahu alayhi wa la ca jigéen ña dajale woon bu ëpput la góor ña dajalewoon it la góor ña dajale ëpp ndax mboolem saxaaba yi li ñuy bari bari ku ci boo ci génnee Abu Hurayra kenn ku ci dajale li Sayyidina Aïcha dajale ci ay ahadis soloo ko kenn dajale te naka noonu ñu baree bari soxna Umu Salamata ak ñeneen ñu bari ci ña fa nekkan ci e, e, e, nisaa yi nga xam ne ay ay ay saxaabiyaat lañ ñun ñëpp tey fa tabaarakallaahu maanaa dajale nañ lim bu takkoo takku ci li nga xam ne eh, mooy xam-xam bi nga xam ne mooy moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ci wàllu xam-xam bàyyi woon naka noonu loolu mës ta deñ jamono yenn yu nekk rek ji nga Égypte gi nga xam ne dañu wax kaabatul ilmi soxna Nafisa di sëtu yonent bi sallallahu alayhi ndax ndax na Hasan moo jur Zayd mi mi ko ko jur Seydina Hasan ibnu Ali ibnu Fatima boo demee ca Égypte daaraam ja ak jàkkaam ja ba léegi ab quartier boppam la ñu di ko soxna Nafisa muy zawiyaan bi nga xam ne fa la daan jàngale bokk na ci ñi jàngal imaam Saafi yu ci boppam te jigéen la naka noonu soxna Zeynab bàjjanam noonu Rabiatul Adawi noonu ah boo wàccee ba ñëw ci nun soxna son maam soxna astawaalo daaraam ja daaray xam-xamam ja ak ña nga xam ne formé leen ci ay góor yàlla kenn xamul nu mu kon loolu muy taxawaay boobu kon eh, ci préparé Eh, eh, gi nga xam ne lislaam da ko doon préparé jigéen comme ni nga ko xamee ne moom lay parapare góor ngir lan responsabilité bi mu leen dénk ci biir diine ji ak bi mu leen dénk ci biir penc mi ak société bi ñoom ñaar la ko dénk kenn ku nekk nag am nag sa wàllu bopp boo ci war a yor mu des nag kon léegi liggéeyu jigéen ci gisunu islaam xam nañu ne ci aada lu jiitu diine yi ñëw am na liggéey boo xam ne ci biir kër gi jigéen moo ko baaxoo def loolu wutewuñu ci waaye li liggéey bi nga xam ne nag eh, boroom xam-xam yi diine yi ci lañ xaw a am tuuti wuute mooy liggéey bi génn bitib kër gi mu am nag ñetti tendance yoo xam ne ñoo dégagé wu ci wàllu boobu tendance boo xam ne bu nekk extrême boo xam ne bu nekk extrême ci euh, nga xam ne maanaa <laughs> tendance boo xam ne ay extrême lañ ci wàllu googu xaw cee radical lool muy bi nga xam ne daa tënk jigéen rek liggéey jigéen ci liggéey bi baaxoo def ci biir kër gi ci togg ak yàkk ak buub ak baleeg fóot ak ak toppatoo xale yi am na ñoo xam ne dañoo jàpp loolu mooy liggéeyu jigéen liggéey amul sañ-sañ wala wër génn biti kër gi di liggéey beneen liggéey ñooñu ñooy extrémiste yi nga xam ne ñoom foofu lañ tënk jigéen e boo leen ne fu ngeen ko sukkandikoo ñoo ne ca waxaar na fi buyooti kun na jëm waxan soxna yonent bi sallallahu alayhi loola lañu wax ne dëgg la xitaab bi ci yonent ci jigéeni yonent bi la jublu woon ci bi muy wàcc waaye nag yemul ci ñoom dafa dajale mboolem kuy jigéen am beneen nag tendance boo xam ne moom it ñoom it ay extrémiste lañ ca seen gis-gis muy ñi nga xam ne ñoom dañoo boyal jigéen la ne moom ak góor ñoo yam même pied d'égalité ci wàllu googu muy sañ-sañ ak warugar wi góor am pour war a génn liggéey ni la jigéen ji war a génn liggéey kër gi moom ñoo ko bokk dañuy xool nañ koy seere ak kan leen mën kan moo leen mën a wuutu ca lañ fa war a dem muy mbindaan mu ñu jël wala bon wala yooyu waaye góor gi bu xëyee jigéen ji daa war a xëy nga yit ñu extrême ay extrémiste lañ ci wàllu boobu am nag beneen boo xam ne moo nekk ci digg bi boobu ko dafa wax ne eh, dëgg la jigéen liggéeyam priorité mooy kër gi mooy toppatoo kër gi ak njaboot gi ko yàlla boole ak boroom këram bu fekkee ne jigéen la ju nekk ca néegu sëy bu dee ku demagut néegu sëyit jàppale way juróom bu jigéen ci kër gi ak ñaari way juróom ci kër gi ak liggéeyu kër gi loolu mooy priorité surtout nag bu fekkee jigéen ju nekk ci biir néegu sëy la yàlla jox ko ak njaboot yar njaboot ga ak di leen bàttili surtout nag bu ñu xàmmee ba tolloog bi ñuy dugg daara kooku mooy mooy priorité am waaye loola tegtaliwut nag ne dafa am te dafa sëñte génn nag pour liggéey yi su demee ba dëppoo ca ak borom këram te ñu gis ne liggéey ba moo gën a nekk maslaha ci kër gi ak njaboot gi ci toog ci biir kër gi bu boobaa nag dañ koy uppil buntu nag mu am sañ-sañu def ko muy loo xam ne nag mooy li dëppoo ak gis-gis bi nga xam ne sama gis-gis comme ni ko sëñ seexu naa junja moo dëppoo ak waaxeex nag ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi loolu moo doon am kenn wérantewut ne liggéeyu kër gi kooku mooy priorité muy yar toppatoo njaboot ga ak liggéey ba mu war a def waaye nag suñ demee ba mas la a nag mu war a génn génn goo xam ne du yàq dara lu yàq dara wala mu gàllankoor dara ca lam waraan def ci biir kër ga bu boobaa it gis nañu ne e boobaa dafay jaatu bu génn gis nañu ay misaal yu baree bari ci loolu ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa jëlal ku mel ne Soxna Xadija ci génération yii yëpp loolu daf ci daan am ku mel ne Soxna Xadija xam ngeen ne e, lu jiitu lislaam di ñëw ci jasiratul arab yi fi mu nekkan muy golfu arab euh, nekkan na jigéen ji nga xam ne femme d'affaires boo xam ne tey ci ñi gën a riche waxuma ci jigéen ña fa nekkan waaye ci li ëpp ci góor ñi sax nekkan koo xam ne bépp activité économique muy sàmm ak commerce ak lépp daf ko doon boole waaye da doon jël nag Euh, la nga xam ne méngoowul ak liggéey jigéen dafa doon def li ñuy tudde mu daara ba muy jël ay ji ay góor employé leen ñu di liggéey mu di leen fay ba loolu moo ko boole ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko muy ku koy liggéeyal mu di ko fay ba ci biir relation bi mu am moom ci biir liggéey boobu ci la gis ci moom jikko ak melokaan wu mu ko nawee woo xam ne gisu ko ci kenn kum masa liggéeyloo ba ca la gisee ne kii daal ni ma doyee ci sama alal ak ni alal chére ak ni si mënee ñàkkat ni si mënee def naka sudul noonu ci ak ngoree bi mu def ci ak wér ak kóoluteef gu toll ni kii te séq ku dul man ak ku dul man mi nga xam ne jigéen la kon ni ma doyee ci sama jëmm ci sama alal ji kon noonu naa ko ne doyloo ci sama jëmm ji ba gaaral ko su ko juboo ma dégg ko sama bopp ba loolu mooy waral seen diggante loola itam bi lislaam taxawee it ba yonent bi woote xam ngeen moy mooy ki ko njëkk a gëm mooy ki ko njëkk a ca loole waaye bi lislaam ñëwee itam nag loolu nga xam ne aada la yum fi fekkan muy jigéen di fegoo ak boroom këram wala mu feggoo ak waajuram di ko jàppale ca liggéey ba yéwénal seenu nekkin ca biir kër ga ak wa koy yéwénal ca bitib kër ga loolu aada la jum fi fekkan bi islaam ñëwee daf koo adopté li ci am solo mooy ñoom ñaar nañ ci déggoo muy jigéen ji na déggoo ak boroom këram ci loolu tey liggéey ba nañ gis ne ba mu gis ne maslaha la liggéey ba muy def ci bitib gite ba ne rek maslaha moo xam ne day delluwaat ci njaboot gi ak kër gi yëpp boobaa am na ci exemple yu bari ci islaam joxe gannaaw bu islaam taxawee ku mel ni kii asma bintu abi bakar siddiq subayr ibnul awaam moo ko yoroon nekk góor goo xam ne loxoom jotutoon gannaaw dafa xaw a ne néew doole yonent bi moo ko digal nekkoon nga di ko jàppale ci biir lépp loo xam ne lu yéwénal kër gi ci biir ak ci moo tax danaan ànd ak moom ci biti di liggéey léeg-léeg sax Subayru am ngant moom mu génn dem liggéey pour mën a indi ci biir kër gi bépp liggéey boo xam ne góor dana ko def rek ci loo xam ne lu yéwénal penc mi di yéwénal kër gi soxna Asma bintu Abi Bakar Siddiq nekkan soxna Subayru ibnul Awaam bokk ci ñeent fukki góor yàlla yi njëkk jaayante ak Rasulullahi doon na ko def naka noonu soxna Faatimata di doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkan soxna Sidna Ali foofu la féete woon Sidna Ali ci wàllu liggéey muy loo xam ne kon e mësta dañ mu lislaam di ko andi waaye nag danañ ci ñëw ci kanam dafa am nag bu demee bay am ay charte yoo xam ne e ci lay ci lay tege parce que lislaam leen lu ci nekk e daf koy daf koy daf koy euh, euh, daf koy conditionné mu mel ni ci liggéeyu jigéen danañu dem a dem a dem sax ba mu nekk faral muy liggéeyu jigéen ci biti misaal jigéen ji nga xam ne tey yàlla dafa dogal mu nekk ak ñaari way juram yoo xam ne dem nañ ba doon mag ba amatuñ kattan ak doole liggéey lu yor njaboot gi muy am njagamaar bu nekk ci biir kër ay way juram sa yéegut kooku tey dafay nekk warugar ci moom farata mu génn nag comme amul ay càmmiñ yu mën a yor seen way ñaari way jur yii wuutu leen ca lañ daan def ba moo fa sës moom jigéen jii day nekk farata ci moom mu génn wuti liggéey bu lew bu dagan bu sell pour mën a yor mën a jàppale ñaari way juróom yii loolu alxuraan andi na ca xissa boo xam ne tey ba léegi ñu ngi koy jàng di ko jaamoo yàlla ñu wax ci xissatu Seydina Muusa ci ñaari xale yu jigéen yooye nga xam ne dafa dox ba ci digg eh, njolloor mu fekk leen ci benn teen ñoom ñaar ñuy wëgg sonn lool wét fa lool Seydina Muusaa laaj leen ah yéen lan moo leen yóbbee lii wéetaay wutal nii yéen ñaar képp ci manding nii ci waxtu wii ak liggéey bu metti bii amu leen kenn en tout cas ko yóbbee kat yàlla danoo nattoo am wala ak ñaari way jur yoo xam ne mag lañ ba mënatuñu lii amatuñ kàttanu ñëw fii di root di indi ci biir kër ga njaboot gi di ko jëfandikoo ak jur ga te ñun rekk la am loolu nag moo tax rek nuy ñëw fii yi tax nuy ñëw heure bi ah moo di e, li tàmbalee ci suba ba ci waxtu bii góor ñi ñooy fees dell pind bi di njëkkante te nun amuñu doole xëccoo ak ñoom loola te bëgguñoo nekk di jaxasoo ak ñoom di xëccoo ak ñoom pind bi moo tax dañ leen di ëppal ba ñu root ba dem ba teen bi wéet ñu doog a ñëw ndeysaan noonu la ko aaye ba nekk nettalee nga xam ne Seydina Moussa daal di ñëw ndeysaan jàppale leen root ba kii mu ànd ak ñoom gunge leen ba ca seen wayjur ba nekk sa ba jeexe loolu itam nag bi alxuraan ñëwee ko saxalaat waxadaa rabbuka allaa taxbudu illa iyaak wa bil waalidayni ihsaana imma yablughanna indaka al boo xam ne ci góor ak jigéen la islaam daf noo digal foofu yéen njaboot gi muy góor gi di jigéen ñi na ngeen delloo njukkal seeni wayjur te fàttaliku fañ jaar ak yéen ba ngeen mën a gudd dara fañ leen féete woon kon bu ngeen demee ba ñu màggat ba mënal tuj seen bopp dara fàttaliku leen démb te laxasaayu féete leen fañ leen féete woon gunge leen ci seenu mag ba noppi leen a gis kon ci biir loolu et képp koo xam ne xale jigéen nga ju nekk ci biir kër way jur yu dem ba màggat te amuloo ay càmmiñ yu leen jàppale day nekk farata ci yow nga génn liggéey ci biti loo leen jàppale kooku kenn la loolu farata la beneen bi ci des bi wara waral liggéeyu jigéen ci biti mooy jigéen joo xam ne tey mu ngi ci néegu sëy waaye jëkkëram loxoom jotul gannaawam alquran wax na ca ba muy wax wa alal mawludi lahu risqu una wa kiswatu una muy góor gi kat moom mi jaboote moo war a dundal moo war a dëkkal ñim jaboote ñépp soxna saak doom ya moo leen war a wott moo leen war a dëkkal waaye da caa tegaat ne lu yunfiq soo saati min saatihi wa man qudira alayhi risquhu falyunfiq mimma ataa Allah loolu mooy li war waaye nag loolu tigtaliwul nag jigéen ji kat su akkee am na moyen ak man-man ko mu mënee jàppee ci mbir yooyu ba mu seetaan góor gi nag da dugal loxo ci biir liggéey ndax kenn ku ne xam na ne ki man moom def li ko war ci ñi mënut farata la ci moom boobaa nag bu demee bay def nag wabda bi man ta'ulu yaddul ol yaa xayrun min yaddi laa waaye wabda bi man ta'ulu bala ngaa dimbale ña bind dimbaleel sa boroom kër bii ci li ngeen bokk muy njaboot kon jigéen ji nekk ak boroom këram boroom këram mi ngi def effort bi man lépp waaye loxoom jotut gannaawam li muy am ci biirub liggéeyam mënta yor njaboot gi yorin wu rafet ca dëkkuwaay baag kodd maag tudd baag njàngum xare ya ak seenum paj kon boobaa moom itam eh, bu fekkee ne bu dëppoo na ca ak boroom këram day nekk maslaha ci njaboot gi ak ca kër ga bu amee liggéey bu sell bu lew bu mën a def pour mën a jàppale boroom këram ci li leen war ci biir njaboot gi bu waa day nekk farata misaal nañ ko ci léegi ci asma bintu abi bakar siddiq ak fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu dañ ko yàgg gis bu baax a baax ah fa tabaarakallaahu gis nañ ko itam e, ci nit ñu koy nettalee ci histoire sunu maam jaaratullahi busa sunu maam soxna Anta Ndiaye soxna sunu maam soxna Faati Isa sunu maam soxna Penda Buye kenn ku ci nekk histoire netti ne na sa taxawaay boo aman ci biir kër ga ak jàppale sa boroom kër ci lu dul rek togg ak fóot ak entretien kër ga waaye ci li nga am ci am am ak man man bi nga xam ne ci liggéey nga ko amee naka noonu léegi-léegi liggéeyu jigéen surtout ci seen jamono ji dem ba pénc mi ak société bi moo koy soxla mu nekk nécessité tey xam nañu ne métier mi nga xam ne moom la ñuy wax wàllu laalu médecine état islamique yi nga xam ne yépp tey seen loxo jot na seen gannaaw jigéen jigéen a koy traité góor góor a koy traité ndax xam ngeen ne léeg-léeg am na wéradi goo xam ne bu la dalee yow jigéen ji bu dalee jigéen ji walla mu dal góor gi la muy laaj visite ba la muy laaj ci wéet yow ak ki nga xam ne moom moo lay con moo la war a traité feebar bi léeg-léeg feebar ba ak wisit ba laaj ngeen war a wéet ci benn barab boo xam ne kenn du leen ñetteel nga war a summi sa yére yépp moom muy jël ay loxoom da ko jaarale ci seeram yépp pour mën a identifier feebar bi xam ngeen ne loola bu fekkee ne ci jigéen la ku ko seq ak góor ah ñàkk pexe de moo war a tax loola am dama dem ba amuñu benn pexe waaye loola xam ngeen ne wuute na ak eh, li nga xam ne dëgg la moom la njàngaleem lislaam ak même sax suñuy aada waaw jigéen di wéet ak góor ci benn chambre bu ñu tëj dindi ay yéreem yépp tëdd góor jël ay loxoom di jaarale ci aw yaram di maaseeka nabb nabbal loolu ñàkk pexe loolu moo tax nag réew yi nga xam ne yeewu jullit yépp yi développé yëpp léegi dañoo fexe ba loolu mucc nañ ci lool mu nekk kon warugar ci société boo xam ne ay jullit lañ jigéen ñi ñu jàngal leen médecine ba nga xam ne hôpital benn bu nekk jigéen ña jigéen moo leen di traité jigéen ni moom moo leen di traité rawatina xam ngeen ne jigéen ji toll ci ab diggante ba war a mucc war a am doom condition ya muy amee doom xam nga ne sage-femme wala infirmière kooku rek bu ci euh, mooy mooy mooy mooy ka ci gën a yell góor di ko ko defal bu ñu demee nag ba pexe amul góor mën na koo def kon nag loolu métier la moo xam ne muy métier médecine métier la moo xam ne société bi jullit yi dañ koo soxlawoo ci jigéen ñi naka noona loo demee rek ñaw xam nga ne jigéen tailleur bi bu lay ñawal fokk mu natt la bu lay natt fokk moom it comme médecin bi fokk mboolem cër benn bu ci nekk ngir mu man koo natt fokk mu jaarale ko loxoom loolu bu dee e, tailleur la boo xam ne jigéen la koy defal loola it day dàqonte ak wax dëgg yàlla li lislaam santaane kon nag bu ñu mënee am tailleur bu jigéen boo xam ne mooy ñawal jigéen ñi di leen natt loola it mooy mooy mooy li nga xam ne kon day doon métier moo xam ne moom itam penc mi da koo soxlawoo te dëgg la bokk na ci métier yi nga xam ne xëy na bu ko jigéen ji jàngee ba man ko mën na koo defee ci biir këram atelier bi nekk ci biir këram wala mu wut atelier boo xam ne donte ci bitti kër gi la nekk atteb kër gi la yor ndax moo fay nekk ak i jigéen ku dul jigéen du fa dugg kii clientèle loolu mën naa am waaye ci kaw mu am ay moyens waaye léegi-léegi mu nekk koo xam ne jàng na ñëw ba man ko waaye amul moyens am atelier ci biir këram dañ koy embaucher di ko fay muy ñëw bu baax obligatoire fokk mu génn te génn gi la ñuy wax kon yooyu nekk métier yoo xam loo xam ne moom it loolu dana dana tax jigéen naka noona buñ delloo ci jigéen ji nga xam ne ba tey e, e, moom it moo ko àtteeb ki nekk ak borom këram wala way juram te loxoom jotul gannaaw mooy jigéen joo xam ne doon na sëy waaye yàlla dogal na boroom këram génn àdduna mu nekk arma la bàyyee ko ak njaboot bu ndaw boo xam ne mënaguñu dara mu war leen a taxaw seenum njàng ak seenu nekkin te amul ku ko ca wuutu kooku it léeg-léeg moom it pour mën a wuti ab liggéey pour mën a yor ak njabootam léegi day nekk farata kon ñu gis na yooyu yëpp kon bu amee dana waral jigéen ji eh, ab liggéeyam ci biti nekk loo xam ne maanaam farata la su ko defee nag bu ñu ñëwee nag tey ci bu demee bay liggéey nag bu demee bay liggéey nag nga xam ne liggéey bi dafa nekk farata wala mu nekk loo xam ne tey lu ñu recommandé la maanaam lu kër gi soxla waaw wala pénc bi soxla woo ba di ko def ci yan condition nag la islam tëral mu war ko caa defee am na beneen sax bu ñu bàyyi boo xam ne moom it bu récent la bu xew ci yii tax eh, léegi-léeg ci biir soxla jigéen génn liggéey ci bitti muy jàng jàngale xam ngeen bu ngay demee ci pays arab yi nga xam ne seen loxo jot na seen gannaaw la tàmbali ci primaire ba ci université xale bi fa muy jànge ay moromi bu dee jigéen ay moromi jigéenam képp la fay nekkal ay jàngalekat yu jigéen it ñoo koy jàngal wala bu dee jàngalekatu góor itam day sàmmoonte ak anam gi nga xam ne moom la war a nekkee ak i jigéen kuleetul banaat maadul banaat boo ci dem fenn ku ne ci réewi arab yi da ngay fekk ne ñi fa ñuy jànge ñoom xale yu jigéen yi ñoom rek ñoo fa nekk duñ jaxasoo ak xale yu góor yi moo xam ca école ya gën a suufe la ba ci université loolu itam yi tàmbalee xew ñu di ko gis loola wane na ne loola nekk dem na bu mujj nekk farata nag ci teqale góor ñi ak jigéen ñi ci barabu jàngukaay yi kenn ku ci nekk nag sa ki nga bokkal aw xeet di la jàngale gis nañu ne yu baree bari yuy xew ci diggante maître yi ak gone yu jigéen ya ñuy jàngal moo xam ca école française moo xam ca école arabe yi ba ci daaray alxuraan yi doo am am at mu ñëw ba jàll te déggoo tuuma juñ jël teg ko ci góor gu doon jàngal ay jigéen moo xam ca école yi tubaab français ya la moo xam ca école arabe yi ba ci daaray alxuraan yi sax dañ ko ciy gis te loolu lépp rek li ko waral mooy jaxasoo ki waaye su fekkante ne tey bu dee ci daaray alxuraan yi ñi toll ci jàng alxuraan ñëpp ci jigéen jigéen na leen di jàngal bu dee ci école yi arabe yi noonu bu dee ci école français yi noonu bu dee ci kule yi yëpp du ci am kon mu mel ni ah loolu it dafa nekk kon farata joo xam ne tey eh, képp koo xam ne da bëgg a dund sa diine eh, loolu war nañoo tàmbalee dox jëm ca muy muy muy muy muy muy muy wàll googu yoo yëpp yoo xam ne yu yu wane yu solo su ne léeg-léeg liggéeyu jigéen ci bitib kër gi léeg-léeg kër gi te koy soxla waaye léeg-léeg pénc bi da koy soxla léegi nag bu demee ba di ko def la ca jëkk mooy an yakuna al amal fi zaati masruan mooy jëmmi jëf ci liggéey bi ci boppam daa war a nekk liggéey bu dagan nag li génn liggéey pour yor ak njabootam taxawu boroom këram wala taxawu ay waajuram nekk nekk farata ci yenn situation yi bu demee ba koy defit liggéey ba muy def na nekk bu na nekk nag bu dagan jëmbi liggéey bi na nekk bu dagan waaye bu mu nekk lu araam wala loo xam ne mën na koo pousser ci mu def lu araam loolu misaal ma mooy lan bu mu nekk ne day mbindaanu ci kër célibataire boo xam ne célibataire ba dong nga nekk ci biir kër ga amut soxna yaayam nekk fa kenn nekkut nga xam ne mi daan su xasee dugg ci biir kër ga ba muy génn célibataire bii amut boroom kër rekk la fay nekkal loolu moom ak lu mu ko mën a jëndee loolu lislaam du ko ko may baneen ba ca des walla mu nekk secrétaire boo xam ne liggéey bi day soxloo guddee n'importe quelle heure ci guddi wala ci bëccëg faw dañoo war di wéet ñoom cepp tëj seen bureau nekk fa ay waxtu yoo xam ne kenn du leen ñetteel bu dee liggéey bu mel ni bii la itam lislaam du ko may mu def naka noona liggéey ci lu mel ni restaurant wala baar wala hôtel boo xam ne liggéey ba ci boppam daf koy exiger muy def loo xam ne lislaam da koo tere jëmmi liggéey ba ci boppam mën naa nekk loo xam ne lu dagan waaye mu ànd ci biir liggéey ba nag loo xam ne lislaam daf ko ko daf ko ko araamal ci kaw mu liggéey ci bar wala restaurant wala ci hôtel boo xam ne tey faww nag clientèle ba fay ñëw faww mu servir leen sàngara ci misaal restaurant boo xam ne tey ña fay ñëw dañuy naan sàngara te moom ma fay liggéey nag dafa am obligation nag servir leen sàngara wala hôtel walla bar wala cafétéria wala lu mën a doon bépp liggéey boo xam ne tey bu fa nekkee dana def loolu dafay araam parce que sàngara comme ni ko addis bi waxee yàlla dafa rëbb tëkku ki koy jaay ak ki koy jëfandikoo ak ki koy jottali ki koy jëfandikoo ak kii liggéey ci barab biñ koy liggéey bi bi nga xam ne moom bi nga xam ne fa lañ koy fabriqué kon boobaa lool it liggéey liggéey liggéey boobu itam du du du dagal naka noonu naka noonu naka nag wala mu nekk otest ci compagnie aérienne yi nga xam ne day aajo mu tukki nag du semaine boo xam ne tey du gis way juram du gis euh, bu dee ko sëyeegu du gis borom këram di jaxasoo ak i góor yoo xam ne tey ci condition yu doy waar lay jaxasoo ak ñoom di servir sàngara ok ngeen boo duggee ci biir euh, ñun ñëpp dugg ñuy dugg ci ab yooyu yëpp gis nañu tey hôtesse yi fi nekk tey bu ñëwee dañ lay laaj boo toogee rek bala ngaa am trent minutes rek ñu ñëw nela Euh, ne la lan ngay naan champagne ngay naan wala we ngay naan wala jus d'orange wala yooyu ñoo la koy servir kon liggéey bu mel noonu itam e, dafay nekk liggéey boo xam ne bu araam la kon bépp liggéey boo xam ne bu araam ci jëmmi liggéey bi wala mu bën laa junj ci kii ak loo soxla soxla woo liggéey pour yor sa baay wala dimbali sa jëkkër wala yor sa njaboot lislaam du la ko may beneen bi ci des moo di jigéen ji bu demee nag bay liggéey ah liggéey ba ba tey ci lii la xaw a dugg mooy na sàmmoonte lu jafe nag lool nag ci suñu jamono ji muy bii na sàmmoonte ak melokaan bi nga xam ne jigéen juy génn këram di liggéey ci beneen barab wala muy dem ci beneen barab moom la war a sàmmoonteel ca col ga ca doxiin wa ca waxiin wa ak ñam ko seqal ay alxuraan caa ñëw wala na bi arjulihinna li ya'lamu maa yuxfiina min ziinatihinna alquran nee na bu ñuy génn nañ sol yére yu jot sëkk yu muur seen lépp loo xam ne lu wërta feeñ la te lu dul xar kanam bi rekk ak ñaari tàng yi buy génn wërta feeñ tal gu jot sëkk gu fatt goo xam ne du nekk gu yaraax goo xam ne dangay xool di gis yaram wa du nekk gu gàtt goo xam ne itam li ëpp ci cëram day feeñ muuru sol col googu la lañu bëgg ma sol ko buy dox na dox dox bu teey waaye lam ya mu takk wala xeeti yeneen ya mu takk yépp ci jigéen baaxoo takk bu muy dox dox boo xam ne day yëngutu bay attirer attention nit ñi ba ñu yëg ne kii kat nangam la takk alxuraan alxuraan na ko jaar jaaral boppam fa muy liggéey itam bu muy dem nag di neexantal ba pour attirer waaw maanaa nay wax farata te bu koy wax itam na ca ànd ko dëggu waaye bu mu nekk nag di sarme ak a neexal baat pour attirer attention muy li nga xam ne tey contrairement liy xew ci grande surface yi nga xam ne ñu ñuy jël tey dañ leen di tàggat ci loolu tàggat ci façon waxin woo xam ne ci waxin wu woo xam ne da ngay da ngay charmer ñi ngay wax pour ñu ñu sawar maanaa sawar a jëflante ak yow lu baree bari ci ñii ñiy recruter ñooñu dañu leen defar formation ci yooyu nan ngay sarmee ñiy ñëw ci biir góor ñeek jigéen ñi ci sa col ci sa wax ci say doxin marketing loolu ci biir marketing dañ ko ciy jàngale islaam nag liggéey bu mel noonu nga xam ne dangay dem di exposer sa bopp loolu gis nga lam ca waxan e, wala tabaruj na tabaruj jël jaahilatul ula ah léegi kon loolu lépp nag dafay conditionné liggéeyu jigéen bu demee ba di ko def ba ca des nag mooy an laa yakuna amalo ala isaabi waajibaati xal uxra muy liggéey bi nag comme ni ñu ko waxee woon bu mu nekk loo xam ne li nga xam ne nag dëgg dëgg dëgg dëgg mooy liggéeyam bi nga xam ne nag mooy li jiitu moo nekk lu fondamental te mooy li aju ci njaboot bi taxawu njaboot gi ak taxawu borom këram parce que alxuraan dafa am nu mu seddalee nag penc mi wuy kër gi arijaal xawaamuuna ala nisa bima fadallaahu baaduhum ah wa bima anfaqu léegi kilifteefu kër gi jigéen góor gi lañ ko jox donte société la boo xam ne ñoom ñaar ñoo ko bokk kenn ku nekk nekk ci actionnaire li ko waral mooy li gérer gestion kër gi li mu laaj condition physique morale ya mu laaj li ci yàlla baaxee di ko baaxoo def ci góor gi da koo baaxute def ci jigéen gi te dafa aju nag caractère spécial boo xam ne ak melokaan boo xam ne tey eh, kër gi ak gérer kër gi daf ko laaj la ci ëpp nag la mu cay baaxoo def ci góor gi daf ko dafa bokkut ak la muy baaxoo def ci jigéen gi wama ak ak dépense bi ñoo bokk société bi kenn ku nekk nekk ci actionnaire kenn ku nekk mënta ñàkk sa morom mais téewul la ci aju ci dépense yëpp góor gi la ko gàll kon mu organiser ko ne kon góor gi mooy génn moom di wuti di indi di jox jigéen ji jigéen ji di ko gérer moom itam ak di yar njaboot ji alxuraan ko min ayaati an xalaqa lakum min anfusikum aswaajan di taskunu ilayha li taskunu ilayha kon kii génn kii génn mooy ah mooy mooy mooy mooy ki nga xam ne moo moo soxloo moo moo moo mooy dellu siwaat ci biir kër gi kon ki nekk ci biir kër gi ilayha mooy jigéen ji nekk ci biir kër gi li tas taskunoo ji mooy góor gi génn bu génnee nag liggéey ba indi ab coonoom nag fekk fi jigéen ji ci biir kër gi mu parapareel ko añam bu dee waxtu añ parapare ko reeral defaral ko néegam defaral ko ay yéreem defaral ko ndox mu naan la ko war la leen waran ci njaboot gi lépp itam te moom ma génn dekk ci liggéeyam tëlu ko ma wuutu ko ca loolu mooy liggéey bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy al asaas ci boppam loolu nag e su fekkee ne bu demee ci liggéey bee lee dana dàqu complètement ba jël xalal boobu baa lu metti metti kon bu baa day toog ci biir kër gi waaye nag loolu mu nekk loo xam ne saafara da cay mën a am moo tax ñu waxam ne ñoom buñ ca dëppoo buñ demee ba jigéen ji lu jiitu buy ñëw ci néegu sëy ay waajuram dañ ko préparé woon ngir mu amal njariñ këram amal njariñ société ba mu am ay diplôme yu kawe am njàng ak xam-xam boo xam ne penc mi da koo soxla te lii ci biir kër gi moom mën na cee am saafara kon boobaa dañuy waxtaan ci seen biir ba jubóo ci wut koo xam ne moo leen di wutu foofu comme ni muy amee wun bindaan moo xam ne ñoom ñaar ñooy jël di ko fay wala moom jigéen ji ci boppam moom mi nga xam ne tey moo war a def loolu moom moo koy fay ci salaire muy togg di buub di nettoyer xale yi ñu ci war a dem école mu yóbbu leen école loolu lépp tey ñu waxtaan te ba juboo ja nga xam ne kon liggéey bi war na am ci biir kër gi dara manqué wu ñu di ko doxale noonu léegi nag mu am loo xam ne tey loolu mooy li war a am eh, boo gisee nag euh, fii ci Sénégal fa tabaarakallaahu loolu moom eh, yàlla euh, am na ci ñu bari ñu ngi ci dimbale waaye ñi ci am jafe-jafe mooy suñu mbokki immigré yi nekk ci bitim réew ñooñu moom ca àjjuma jële maa ngi ci doon waxtaan ci seen biir ci jàkkee daaru minam ji ñoom am nañ jafe-jafe ndax ñoom dañuy bëgg a bénéficier woo li nga xam ne moom la leen occidentaux yi jox ci liberté jigéen ji di xëy ni góor gi xëy ba noppi bëgg a woo li leen islam jox ci intérêt ci malgré jigéen ji day liggéey kët góor gi mooy yore mooy mooy mooy fay lu yaayee kër gi mooy fay dund mooy defal lépp ndaw si moom li muy liggéey ay or ak yooyu la koy jënde ak yëfi boppam ak di ci sàmbay mbayaa naka def yëfi boppam bëgg a jël ñaar yooyu kooku nag islam ma yow waaye bu dee nag ci liggéey bi ci ci biir euh, fii ci euh, réew mi moom nii bu ko defee nii rek lislaam dana ci yàlla dogal it nag comme ni ko sëñ Cheikh waxee ci la ñuy yaxale yàlla dogal nag exemple bi ci yoonu murit ci liggéeyu jigéen boo xam ne tey du ko yàqal dara ca liggéey ba sëriñ bi daf cee joxe modèle bind naa ko sama téere ma ci waa sàq yi sëriñ bi dafa leen waxan ne leen seenub liggéey li ci jiitu mooy tut tànk yi ñu leen jox ngeen jàngal leen bañ xamee seeni farata tokki leen ci liggéey bi jigéen baaxoo def ci biir kër yar leen yarub diine lii mooy liggéey bi waaye nag laneen lu ngeen ca mën a boole te du yàq dara ci biir ci loo xam ne dangeen ngeen ca mën a am lu ngeen faje seeni yenn yitte loolee lislaam may na leen moo waralan ñu aman ñoom dañoo recruté woon ñu ay ràbbkat ñu lay ràbbal di boole ràbb ak suub loolu lañ doon def seen clientèle nekk seex si muy waa kër waa barsàq ak kër yi ko wëran yépp kër sëñ Balla Coro kër sëñ Aafiya kër yooyu yëpp foo fa demaa ab ràbbkat nga fa fekk ak bandi suuf ñuy suuf ak di sagal ak di def liggéey bi jigéen baa koo def te yàqu dara ci biir liggéey bi gis soxna ni ñu koy faral di waxee ci bu ñuy nettali xisa bi soxna eh, Fatou Khoudia bay jure soxna benn ngaabu moom ngaabu la féete woon moom bi mu ñëwee fekk ñee di liggéey liggéey yooyu nga xam ne yàqu dara ca liggéey ba ñu doon def waaye permettre ne leen moom la ko ci gën a ñoral contribution bu ñuy def ci jumaay njaareem ji ak sasu jumaay kii bi góor ñi ñoo ci jigéen ñi ñoo ciy man soxna mi tàmbar moo ma ko nettali nee na ma samaam siñ ma sàmba kenn mësta ñëw bisu tam xarit di fekkee njàng ma ta sat indaale woo sa nit ak juróom-ñett jigéen ñi <laughs> moo ko daan dajale nee na sa bàjjen sax dañu daan dajale seeni dénam yi ñu leen di may ba mën a am seen nit ak juróom-ñett soxna Fatou Kujja nag ba mu gisee loola loola yéem ko mu sàkku ci sëriñ bi sëriñ bi ne ko bu subaa ci waxtu wii na nga dellu jël ñaari mbuus yoo xam ne xaalis la ca def ba mu fees dell bii mu ne ko boo demee na nga ko jënde jur gu gàtt ay xar ak i bëy ak i ganaar li ci des nga ñu lay ràbbal wut ga ay ay mbàndi di boole suub ak rab lu ak def lii soo demee nag ba tono ji lii nga am ci tono joo mën a liggéeyee téyel tono ja liggéey ca de delloo sil ma ndey yi xam nga investissement ba mu ko defee ñaari at ya manqué na ay weer mu am ko delloosi ko mu téye ko bi ak mu ne ko Fatima mu ne am ah, ne ko boole ko ak loolee dama la doon wan aw yoon rek kooku misaal la beneen misaal bi tey te dañ cee war a bind mu di kenn ci waa barsàq yi di sunu bàjjan eh, sunu bàjjan eh, bu baax bi way juru soxna moom soxna Fatou Sylla Libaas ca ñooña la bokk na ci waa Bala Sàkk di ànd ak ñoom liggéey bii bi sëriñ bi ñëwee Touba nag mu ñëw ne day wettali si Cheikh Mouhamadou Fadal bi mu ñëwee fii ci fetto gii goog maam Thierno ko fa la am ay toolam di def li jox mu daara ba boole ko ak liggéey ba mu doon def ci njaareem muy wut ay ay ay ñu koy rab ñu koy rabbal wut ay rabbkat ñu koy rabbal mu boole rablu ay séri dëng ak séri njaago ak sëriñ ñu rek waaye wut ay tool fii ci fetto di def mu daara ba jël ay nit ñoo xam ne da leen di embauché ñuy liggéey bu liggéey bi wàccee la ca islaam santaane ca lañ ca war a am ñu am ko ca lañ ko ca war a jox ñu jox ko ci sëriñ Mor Xari Sill ay jur la ci noonu dëkkan Thiès nekkan ci ñi teel ànd ak sëñ Saliou loolu nettali na ma ne sëñ Saliou nettali na ko soxna Fat si la libaas de moom la xam moom la njëkk xam ci jigéen ju am oto boppam camion la amal T45 xam nga jaay yooyu coopérative yi ñoo am tey baykat yi dañuy am oto boo xam ne tey bu bu mi ñoree moom lay fekk muy jël seen gerte di leen yóbbul ca coopérative soxna Fat si la libaas dafa amal loolu amal ay outil itam ba loola gis nga soxna moom itam moom itam fii loolu la continuer mooy lañ doon def ci njaareem te way juróom doon ko def bi mu ñëwee fii mooy rablu rablu rablu la doon def ci yooyu jamono ak di def mu daara boobu nga xam ne moom la soxna si doon def bokk na ca bokk na ca ñaar ñi mu jëlan kenn ki nekk góor tukulóor boo xam ne bii ba léegi ak njabootam fi tudde na ko doom muy béy di sàngo ak san mindi di ab bi ak kan ku ñax laam koo xam ne jàngkatu xasida la woon waaye soxna si da koo ne jàng xasida baax na waaye wutal loo ci boole jàngal bi muy dem ca ràbbkat yooyu ca mindi ak koo jàng fa ba mën a ràbb boole ko di ràbb ak di jàng xasida xoolal loolu soxna fat si la libaar waaye beneen bi nga xam ne itam misaal la bu baax ci jigéen juy liggéey te sëriñ bi jàngale ko muy soxna aminatu bintu daba sëy ñu gën koo aw gën koo miin ci awa ndar ba dee si ñaari tur yi la tur wenn wi awa ndar ji liñ ko ko daan wooyee waaye turam dëgg-dëgg aminatu bintu daba sëy la moo waral da ngay gis sëñ mat la sëñ sëñ sëñ sëñ mat laamin ak sëñ maxtaar kii tuddee ko nii wéy wooy wenn turwee mooy soxna si yëlli sëy mu nekk nag sëriñ bi Gabon nekkan benn fonctionnaire benn agent boo xam ne da liggéey ci administration coloniale ñu affecté woon ko Gabon mu nekk fa ak sëriñ bi bis ba tubaab yi xëyee ne dañuy buddi jàkkay sëriñ bi muy jàkkay bant ya moom moo taxaw rek patron ne ko tey sama bakkan laa lay jaay mook moom nekk nañ di xeex ba ba ngoon mu ne ko doo buddi jàkk ji mu yëlli sëy moomee dafa jébbaloon ci sëriñ bi mook soxna sii soxna si di am barab bu muy liggéeyee di indil sëriñ bi àddiya di ko jëndal matt mi nga xam ne moom la daan jëfandikoo waaye sëriñ bi comme nag bépp alal ju bàyyi ci nit du ko jëfandikoo te xamul mastar ba fu mu bàyyi koo laaj ne ko ah, yàlla boole na ma ak yow kat nga nekk ab jullit nekk ab taalibe kaay ma dénk la nag li jigéen sañ liggéey ak fi jigéen sañ liggéeyee ak ni jigéen sañ a liggéeye réglementé ko lam sañ a ak lam sañ sa yëngutu yépp Gabon di réew moo xam ne mu doy waar la et am na benn bis muy liggéey di jox sëriñ bi at yi am benn bis mu ñëw ne ko ci diine de ne ko tey de dig nañ ma loo xam ne dafa mel ni liñ ma doon nat liñ ma doon fay digg nañ ma ñettam waaye barab baa koy defee nag liñ ma doon tere lépp nag moo fa nekkat foog ma def ndax ku ñuy jëfandikoo sàngara di ma sëriwloo jëfandikoo sàngara waaye nag la ma wax rek tax na ñemewuma koo jege fenn yoon nga xam liggéey bu metti la doon def waaye bu sell bu baax lenn rek la waxan ne sëñ bi ne ko lenn daal moom a moom moom dong day moom a ca xaw a kii mooy léeg-léeg ña fay dugg léeg-léeg dañuy yore xetu sa sàngara wala xetu uh, cigarette loolu daal xawoon na maa métti mu ne ko waaye nag doo eh, seqoo ak ñenn looy jëflante mu ne ko déedéet mu ne ko loolu moom yolomal yolomalal nañ la ko nga xam ne kon ci biir madrasatul xadimiya gis nga leeral na bu baax a baax liggéeyu jigéen kon ba ca gën a taamu ñu gën ko jaar taamu mooy ba waa bar sàq doon def mooy liggéey bi nga xam ne ci biir kër gi la koy def nga xam ne atelier bi muy liggéey ci biir kër gi muy suub ak rablu boo xam ne yow ñu ngi koy defloo ci biir kër gi lañ la fekk kon jigéen ji bu mënee am liggéey boo xam ne tey ci biir kër gi la koy defee bu bokk teg liggéey bi mu baaxoo def mooy moom mooy bay gën bu demee nag ba nga xam ne amu ko nag ci bitti kër gi liggéey bi da ko obligé mu génn ci bitti nag mu tënku ci sart yi ñu wax muy ñett sart yi nga xam ne moom la ñuy wax waaye lu ci nekk lu nekk nag e mu dëppoo ci nag ak borom këram te liggéey bay nekk maslaxa moo xam ne day dellu ci kër gi ak ci njabootu kër gi te dara lu diine dàq niwu ci te bu koy defi def ko ni ko diine bëggee loolu su ko defee rek fa tabaarakallaahu kon loola mooy li nga xam ne eh, liggéey mu mel ni loola misaal yi ñu ci joxe joxe naa waa barsaq joxe naa soxna moom waaye soxna muslimatu umu seexul xatim demal na ba lii ñuy wax transformation produits alimentaire moo ko njëkk a def demal na ba signé benn contrat ak benn société allemande buy liggéey ci wàllu transformation këram gii ci mbal eh, këram gii ci eh, ayum muy bâtiment bu rëy boobu procès boobu la woon pour ñu waran gannaaw bu ñu mu société bi lépp na ci mu mudaaraba islaam yi ñoom la la ñuy jëfandikoo soxna si am na matière bi am na matière première bi am na main d'œuvre bi am na lépp li ci soxla woon nag mooy côté technique bi loolu la ko almaa yi wara na fournir indil ko ay techniciens yoo xam ne ñooy former ñi fiy nekk ñuy transformer produit yi muy def muy cere gi couscous bi ak yeneen yi nga xam ne mooy jus de fruits yeeg yépp pour ñu di ko mën a exporter di ko yóbbu Allemagne loolu demal nañ ba signé loolu soxna si dem na ba am na nangami at ci atam yu mujj yoo xam ne gendarmerie nationale moo leen di fournir cere dem na ba pèlerinage xam nga léegi la màkka neex tabarkalla boo demee waaye ñi daan aji dañ daan yóbbu seeni i muuraake yóbbu seen i cere yóbbu seen baraay yóbbu seen njorndi jamono yi nga xamee ne tey eh, loolu commissariat ñëpp ci lañ daan dem soxna mu si tegale na ay at yoo xam ne ñiy aji pèlerin Sénégal yépp cere ja ñuy jëfandikoo ak arawlaak lépp lu ñuy jëfandikoo moom moo koy moo moo marché boobu moo ko moo ko rawatina jamono yi alaaji Mas Joxaan yi nekkee commissaire général pèlerinage loolu lépp di di taxawaay yoo xam ne fii la ko doon def ci façon boobu yépp di def transformation ñuy suub di ràbb di def lépp bépp activité boo xam ne dañ koy def ñu di ko def muy liggéey bu am solo boo xam ne tey eh, dëppoon na ak màndarga yépp kon jigéen dafa war a participer ci lépp loo xam ne luy doxal pénc bi ak luy doxal diine ji ca njàngale ma ca yar ba ca woote ba ca liggéey ba waaye nag mu tënku ci sart yi nga xam ne moom la islaam santaane su ko defee rek fa tabaarakallaahu dara du ci dara du ci kii te manu na ci te yonent bi joxe na ci ay misaal ci sahaaba yi seexal xadiim joxe na ci ay misaal ci waa barsàq ca yoon woom leen tegan njabootuk Serigne Touba gii nga xam ne ñoom lañ lim léegi di soxna Mominatu ak soxna Muslimatu ak seeni rakk ñoom ñëpp fa tabaarak joxe nañ ci ay modèles yoo xam ne buñ ci delloo fa tabaarakallaahu danañu développé suñu diine développé suñu société jaare ko ci ñaar ñi yàlla tànn jox leen mission boobu muy góor ak jigéen asalaamaaleykum wa jërëjëf sëñ Xaadim euh, waxtaan wi am na solo lool euh, yaakaar naa ñi ko doon topp euh, jëlee nañ ci ay bind li nga wax ci liggéeyub jigéen tàmbalee ko ca ni ko alxuraan diglee ak ñi nga xamee ne ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi sallam tàmbalee ko ci njàng am njàng ndax nit balaa mën a liggéey day jàng wala mu xam daara ya sosu woon ak nañ doon doxalee ak soxna Khadija mi nga indi muy muy premier exemple boo xam ne bii ci femme d'affaires histoire nettali nañu ko ba loolu moo ko moo ko jokkaleeg sallallahu alayhi wa sallam ba li xew seen diggante xew ba kon loolu tegtaleel na la ci ne jigéen yàgg naa liggéey laaj bi ñuy laaj kay mooy ndax loolu nga xam ne lislaam digle na ko ci nu liggéey nu jigéen di liggéeyee nga joxe fi ay exemple joxe soxna Fatou Sylla Libaas soxna moom yi mi nga tudd ñun ñu ngi fàttaliku ñu ko daa rabbal fii ñoo ñu nga tudd xam-xam nañ leen bay di sangoo ak ñu xam nañ leen loolu suñ kanam la soxna moom yi itam soxna soxna muslimatu Mbàkke moom Cheikhul Xadim li nga wax ci moom itam mu nekkoon femme d'affaires boo xam ne bii non seulement daf doon jaxasoog waa réew mi ak ak gouvernement bi mais doon jaxasook ay tubaab waaye mësta am benn dérapage boo xam ne bii jóge na ci moom nuyoo nuyoo góor sax daanaka daawul am ak seen diggante léegi nag li ñuy laaj mooy ginnaaw lislaam dafa am ay dawaabit yu mu teg ne jigéen nii la war a liggéeyee ndax ñun suñ société bii ñu nekk société bi ñu nekk société boo xam ne ay jullit lañ te ñu ngi am ay jigéen ñuy liggéey ndax ni ci ëpp ñu ngi topp loolu wala topp ko bu ñu ko topput nañ lañ war a def bañ topp ko liggéey bi ëpp yaakaar naa fi mu ne nii bi jigéen di liggéeyee dàqoonte naag li lislaam wax ne noonu noonu lañ war a jàpp jàmmante bu liggéey loolu pour liggéey noonu am na loo tudd ci ñi nga xamee ne dañuy liggéey ci foo xam ne fii xëy na situation la moo lay situation ba ngay liggéeyee moo lay imposé nga def noo xam ne ci solukaay wala ci doxin ci ci kiiwaay na ñoo xam ne ñi col ga dañ la koy imposé lii nga lii nga war a sol boo fi liggéey lii nga war a sol nii nga war a doxe wax nga ci ne ba egg ci ne marketing bi nga xamee ni bii dañ lay jàngal nooy defee ba attirer góor jigéen bu góor pour mu mën a jënd sax te du bëgg a jënd te loolu moo ëpp ci suñ liggéeyu jigéen yi nga xam ne moo xew kon léegi yaakaar naa société bi jar nañu xoolaat delluwaat njàngalem lislaam nan la islaam bëggoon jigéen liggéeye ko ak exemple yi ñu am ci lislaam muy ca euh, tàmbalik lislaam ba ci yoonu murit waa kër Serigne tubaa ay doomam ak i soxnaam niñ doon liggéeyee ak ni nga xamee ne nii mooy liggéey ndax léegi ñu ngi soññ ci loolu wala ñi ngi ci ñi ngi ci dox pour loolu continuer waaye léegi jigéen bu liggéeyee ba am xaalis rek ñu ne jàmbaar la am na xaalis ak noo ko amee baax na loolu yaakaar naa itam war nañ cee bàyyi xel war nañ cee defaat ay njàngat war nañ cee wax ay waxtaan ndax jigéen ñaa ngi liggéey jigéen ñi fi ne ñoo dàq liggéey góor ñi ñoo ëpp xaalis góor ñi ndax ni ñuy liggéeyee liggéey bi leen lislaam digal ñu liggéey ko noonu noonu la ñuy liggéey noonu loolu nga wax itam ci lu demee ni médecine ak loolu yaakaar naa suñ dëkk bii moom ñoo ci war a gën a taxaw ndax ay gynécologue yoo xam ne yi ay góor lañ lu bon bon am kili soxna yi kilif yi fi nekk waroon nañoo te loolu du lu jafe ñu ngi am ay mét ay médecins yu jigéen orientation bi moo des léegi lu tax duñ jël orienté jigéen ñi ñu jàng li nga xam ni dañ ko jigéen da ko war a soxla loolu yaakaar naa war naa mën a nekk war naa mën a nekk lu tax fii fu demee Touba gii duñ imposé maanaam ko la bu fiy ñëw ñu ne jigéen la war a doon wala ñun suñu bopp léegi suñu doom yi fii di jàng ak suñu jarbaat yi nga xam ne léegi ñi ngi ami bac macha allah léegi dañuy jàng alxuraan jàng xam-xam jàng euh, matière scientifique yi nekk ci xale yu bare yu waa dëkk bi ñu ngi ci ñu ngi jàng médecine lu tax duñ jéem a orienté ñooñu ñu jàng li nga xam ne moom la société bi soxla yaakaar naa loolu luñ bara bàyyi xel la itam loo xam ne lii war nañ cee taxaw ndax hôpital yaa ngi fi borom xam-xam yaa ngi fi docteur yu jigéen yaa ngi fi ay murit ak ñu soo xam ne sax sant sant wi sant loolu tax duñ leen orienté ñu jàng loo xam ne lii lislaam da leen koo digal tey itam ñu soxla woo ko yaakaar naa daal euh, sëñ Xaadim li wax rafet na jot na mënuma cee commentaire loo xam ne lii da koy da koy da koy yàq loolu dong laa ci bëggoon a dolli loolu sëñ waaw loolu loolu laa bëgg sëñ sëñ am di sëñ Xaadim ñoom ñi nga xamee ne ay kilifa lañ dañuy wax ak nit ñi nit ñi leen dégg nañ sensibiliser nit ñi sensibiliser kilifa yi parce que njàng ab société mooy seet li mu bëgg mu orienté ca ay ay nitam ñu jàng ko li nga xam ne soxal nañ ko ci dëkk bi war nañoo seet nu ñu fi orienté léegi am nañ ay ay université am nañ ay hôpital yoo xam ni hôpital universitaire la daanaka lu tax léegi jënu jëluñu xalaat yooyu dirigeant yi nañ nañ xalaat ci loolu loolu daal laa bëggoon wax suñu xaarim kon ma bàyyi la nga am xam jërëjëf sëñ seexu naa dafa sëñ seexu naa dafa wax lu am solo ci dëkk bu mel ni dëkk bii ak société bu mel ni société bu Sénégal société sénégalaise bi nga xam ne quatre pour cent ay jullit lañ rawatina ci dëkk bi sëñ seexu boo demee ci maxaasidul arbaa kii li war a motiver kiy jàng mu jàng al amal bil maxluum da caa nekk ma wax ne mi ma euh, bokk na ci li nga xam ne lawaasimul amal bil maxluum an takuna al maalum mi ma tadduxoo ilayhi al aaja sëriñ bi dafa jàngale loolu ne pour nit ki lim jàng mu mën koo jëfe dafay fekk na la muy jàng péncam soxla ko kon mu jàng li péncam soxla waaw waaw muy soxla maanaam ngir nit ki li mu jàng mu ne kon nit kiy def gëstu di jàng di def effort di def ab thèse ngir li mu jàng mu man koo jëfandikoo na dàkk la péncam soxla suñ pénc nag fi ñu toll soxla na ay infirmière soxla na ay saspam soxla na ay gynécologue yaakaar naa loolu moo tax Cheikh Mouhamadou Mourtada sax Euh, université bii bi mu defee kulliya boo xam ne l'islam lay jàngale kulliya buy jàngale médecine la ca dolli parce que dëkk bi dafa soxla woon loola ñu am ay ay ay ay médecin yu jigéen ay gynécologue ñoo xam ne tey du soxnay kilifa yi rek waaye soxnay taalibe yi ñépp itam ñoo leen di traité loolu dafa nekk loo xam ne farata la ah lu jiitu loolu di am nag comme li mu wax euh, nekk ci lu am solo kon xale yi ñu fexe ba orienté leen ci ñu jàng médecine pour mën a wuutu société bi ci wàllu googu euh, ak ji ak euh, ak liggéey yi nga xam ne góor waru cee mën a wuutu jigéen jigéen def ko ca mooy gën a dëppoo ak islaam kon euh, loolu rek mooy commentaire bi ma dooli waatan ci li sëñ doon wax di ko dëggal wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon jox nañ ma benn information léegi mooy li ma doon wax rek ne ginnaaw am nañ université am nañ ay hôpital yu mag yoo xam ne yu fi nekk war nañoo fexe bay orienté sëñ Muntaxa Yatara mi nga xamee ne ci université bi lay liggéey wax na ne kulliyat Tabuk bi nga xamee ni moo nekk ci université bi waajal nañ ci lu demee noonu kon loolu luñ soxla wala kon alhamdulilah na gën a yokk na gën a yaatu te bañ a ci dëkk bi dong jullit yëpp ñoo ko soxla nañ fexe ba jullit yi ay jullit lañ am na loo xam ne dañu ko imposé woon léegi nag wax nañ ne ñoo moom suñu bopp. ay jullit lañ dañoo bëgg a dund lislaam nañ fexe ba sàmmoon sàmmoonteeg ni nga xam ne lislaam noonu la wax ni ñu dunde ko wasalaamaaleykum wa rahmatulah kon euh, ñoo ngi sant ñëpp di sant sëriñ xaadim ci waxtaan wu am solo wi euh, di leen xamal ne suba sëñ Ahmadou Mbacke moom Daaru Musti moo fi waxtaan ci thème boo xam ne bi al ubudiya mafhumuha wa tajalliyaatuha fi hayat Cheikh al Xadim maanaam ab jaam naka la joxar joxe boppam boroomam ak la ciy judd lépp ci dunduk seexul xadim ni ko sëñ Tuubaa doon dunde nekk abdullahi wa xadimu rasulihi loolu lay waxtaane suba euh, ñu ngi sant itam média yi nga xamee ni ñoo doon jàll li fi di ci jiital euh, MKTV muy télévision bu Muxaddamatul Xidma ak yeneen chaîne euh, yi nga xam ne ñoo koy jàllale ak site internet yi ak rajo yi di sant mbooloo mi fi tewoon yépp kilifa yi fi teew yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm ba suba ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد